lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara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 waaye suñ borom boo ko liggéeyalee te sellal sa jëf fa nga nekkoon di liggéey day mel ne su nit ñi xamut sa taarix danga fa dund téeméeri at wala lu ko ndax yàlla moo wax ne du sànq jëfi jaam bu sellal kii fi tëdd nag ñaari at rek la fi def matu waaye li tax dëkk bi toll fi mu toll ba ku dégg soxna si jàpp ne nekk na poroxante téeméeri at te cosaanoo fi askanam nekkuñu fi la yàlla santaane woon ci bu ngeen di gàddaay gàddaay leen ci sama suuf yi ndax suuf yi yaatu na te yépp may borom foo ma jaamoo baax na ndigal ko fi indi jëfe ndigal loolu ku ne war na cee jàng kilifa ga nga nekkal muy sa kilifa la ngeen war a seq ci ndigal nga di ko def bi fi sëñ Moroon Sali di ñëw ci la ko indaale fii boobu Maba Jaxu Ba mooy dajale sëriñ si ngir bañ caddo yi bett ko fayu ci seen kaw ci la soxna jaari ñëw ànd ak sëñ Moroon Sali sëriñ su bari na ci tund wi sëñ Bousso bi mi bokk soxna jaara ndaay ak baay nekk Paos Koto Paos Koto la nekk mu nekk fi nag ci diggante bi mu fi nekk liggéeyal fi yàlla liggéeyu yàlla gërëm boole kook di jaamu yàlla ni mu ko war a jaamoo di taxaw ci ay warteefam ci digganteem ak sëñ Mor Anta Sali waaye liggéeyal sëñ Tuubaa nag ci suturaal ko téyal ko sekkanam liggéey boobu nag la yàlla neenalut moom la yàlla neenalut fay ko ko barke boobu mu sotti ko ci àddina bépp rawatina poroxaan gi nga xam ne benn dëkk la ci Saloum mook dëkki Saloum yi ñoo yem aw waaye li ko valoriser ba ba ku ne di dégg poroxaan te dégguñu feneen jëmmi soxna jaare mi fi tëdd te liggéeyal yàlla te liggéey ba sell yàlla nangul ko ko mooy li ko waral ndax diggante bi gàtt na xam nga 1800 1865 66 wax dëgg yàlla diggante la boo xam ne dafa gàtt guddut waaye ginnaaw guddut nag yàlla la ko seqaloon di ko liggéeyal suñu borom gërëmal ko ab liggéeyam nangul ko ko loolu moo waral tey jii lii am nii tey am. ba àddina bépp dëgmal ko ndax yàllaa mel noonu bu la nangulee wax nañ ne bu la defalee xabul ni Sëñ Tuubaa wax ne yàlla bu la defalee xabul day xabul bi da da koy da koy yéene fépp waa asamaan dañuy xam ne yàlla nangul na la waa suuf xam ne yàlla nangul na la waa géej gi xam ne yàlla yàlla nangul na la waa jéeri ji xam ne yàlla yàlla nangul na la lay teemaa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmal boppam soxna jaara soxna jaara